asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen safoo seen chaîne bi di euh, Saint-Louis TV ñu ngi leen bu baax a baax di leen euh, jaajëfal di leen wax ni euh, ñëwaat ngeen seen émission bi nga xam ne di penc mi tey ñu am mbégte mbégte gi ñu am dañu dalal koo xam ni responsable ci biir Ndar doon quelqu'un bi nga xam ni ku ñëpp respecté la ku ñëpp naw la ci liggéeyam ci xam-xamam ci jàppale muy jàppale ñi nga xam mooy jeunesse bi muy président Adama Kane Diallo di président li nga xam moo di conseil communal de la ville de Saint-Louis ci tamit di président mouvement

di wax ni itim euh, liggéey bu professionnel bu bu taxaway parce que maa ngi suivre euh, di nuyu waa Ndar ah, euh, la jeunesse di nuyu kep ko xamni ni bokk na si mouvement da sa kalam mo ñi nekk ci commune de Saint-Louis ak ñi nekk ci département bu Saint-Louis maa ngi leen nuyu bu baaxa baaxa baax di xaar question yi ñu dugg ci émission bi bisimilah rahmaani rahim génn si alhamdulilah rabbil alamin macha allah mu mel ni comme ni ma ko waxee ci présentation bi bu ne Adama Kane Diallo day ko xam ne moom moo jiite li nga xam mooy président conseil communal bu Saint-Louis tey ku ci mel na man wala amaana ñi nga xam ne sax xëy na xaw na nuroog man idéologie mën nañu bañ a comprendre objectif principal bi nga xam mooy mouvement bi donc mouvement bi ban ban rôle lay joué si si si si réew mi mouvement bi rôle bi muy joué c'est très simple man ndar laa juddoo ndar laa am dew ma bitim réew dew ma Dakar toog fa maa ngi ndar mu neex maa ngi ndar mu metti maa ngi ndar euh, mouvement yi li tax ñu taxawal ko dañu demoon élection législative bokkoon si benn parti bu ñuy wax CPJE euh, Diop si ñëpp xam nañ ko si réew mi mu boole woon ma si listam moom sax daf ma ni woon daf may dugal si liste nationale ma ni ko ah Diop si bu ma dugal si liste nationale dugal ma si liste départementale bi ma diriger ko mun na kooku dina dina dina dina si yow de ma ne ko non qui ne risque rien n'a rien. il faut oser dem dugg si terrain bi am expérience ba ma defee tëdd liste boobu complexé wu ma si leader ma dem si département bi dem si commune bi ànd ak ay nit ñu am conviction sans moins, c'est nit ni waxtaan ak ñoom dem si grand place yi dem ci marché yi hein, dem seeti ndaw yi dem seeti groupement yi dem seeti ñepp waxtaan ak ñoom len bu lañu yalla défé defee ñun ñu nek assemblée li moy nek suñu cër moy dëkk bi ak département bi kay koy ba demee élection amna ñu mu dugaloon ci listam mais ñoñu comme amul moyen ñoñu bàyyi man ma continuer parce que ni da ngay am gëm-gëm nit da ngay am conviction parce que kenn néw fi ko dul yàlla ba mes élection ici département de Saint-Louis c'est l'élection législative suis le 7 e en 802 voix suis le 7 e en 802 voix ñi doon ak man ñëpp fokk nous ñu taxawal nous bi nga xam daanu continuer suñu ba nous suñu biir nous ñu ñu nous def assemblée générale bu mag doon ak man ñëpp département de Saint-Louis de la commune de Saint-Louis ñom ñëpp ñu nous centre mam Fatim Konté bi nek ci HLM. ñi def assemblée générale bu mag gaay def ma yaay mouvement sa ah, ba du mouvement nga créé en fait kon. non du mouvement du man créé. Mhm. ñun ñoko créé. Mhm. ñi nga dañu un ak ñom muy mag mhm. di ndaw di di jigen nek ay borom xam-xam ci côté bu nek ñom ñu taxawal mouvement bob objectif nañu am moy développement ben yaakaar na am moy Saint-Louis avancé comprendre nga loolu moo tax tey ñu taxawal mouvement nous touchons du bois ban nga taxawal ba tay nit ñi ngi adhéré dem ma ngi won Pikine di sété ay femmes parce que avant corona bi di am ma ngi doon def tourner non du sax campagne dañuy massifier ah, la massification du mouvement Ndarsa Kalam si c'est ñu nekk depuis ba yalla défé avant corona bi dem nañu ci quartier nek ci ndar gi yépp dem nañu ci département comme corona bi wax nañu ni mën nga dem mais par 20 personnes su demee dañ koy organiser nit ñi tak masque yi hein nit ñi moytuwaay ak 1 mètre dem ba demee Pikine macha allah responsable yi fa nek yëpp daje na leen ñu waxtaan ak mouvement bi ku nek joxe sa xalaat li ñu ñor dal ci gattal du dara lu lu baax moy développement ndar ak développement wu réew mi

sutura ba objectif yooyu ñu amoon tey atteindre nañ ko ba def nañ si ay jéego yu am solo si biir jéego yooyu conseil bi ñun ban dee ñëw xekk ñu fi dara. ah bon ah oui c' est la réalité kooku kooku. non xaw ma ndax liggéey nañu wala liggéey mais ba nu ñëwee xam nga booy def assemblée général ñi nga xam ne yaa leen di wuutu da lay jox document. ñu la fi nañu jëlee conseil bi. fii nañu yem yow fii nañu bëgg nga yeggale ko ñun bu nuy dem daan fi bàyyi document. daan fi bàyyi ay projet daan fi bàyyi ay relation daan fi bàyyi ay matériel daan fi bàyyi yoon bi wara jaar pour ñu yeggale suñu mandat. donc mën nga may bilan bi nga xam ne jot ngeen ko. c'est très simple Euh tay ci bir conseil bi formé nañu 1500 ndaw. ah bon si walu entrepreneuriat. si walu leadership. si walu communication. si walu informatique. si walu pétrole ak gaz. même bo génnee loolu formé nañu 30 ndaw yi nga xamné ne nañ leen permis conduite ba paré formé walé leen si citoyenneté pour ñom bu ñu yoré auto en tant que citoyen nan la ñuy dawalee oto ba ba bañ di def ak accident parce que ñi dawal auto yépp ñi se ëpp bu ñuy def accident ay erreur la ñuy def mais xalé yoy ñu tànn ñu def formation bobu moy xalé yi nga xamné ay laveur de voiture lañu ñu def ko ben sélection bi nga xamné

Euh, ay xalé yi xam seen doole demeewul noonu tey ñu ngi leen di fayal tey ñu ngi def une formation de deux ans trois ans comprendre nga fi may waxee kon conseil communal bi euh, li ñu def si réalisation moo tax gouverneur monsieur Aïdara Niang xam naa mi ngi ñuy seetaan félicité nañu mhm. madame le préfet madame Traoré félicité nañu monsieur le maire Mouhamadou Mansour Faye félicité nañu partenaires yi félicité nañu association yi félicité nañu ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ça veut dire que c'est une c'est un conseil bi nga xamné yalla defal nañ ci sutura defal nañ ci barké ba objectif yi ñu amone atteindre nañ ko conseil bi nit ñi xam nañ ko parce que kérok ci bir waxtan yaa ngi dégg am na laaj nima adama sen mandat jeexna man leen wi dama bëgg ñu renouveler. non lool sax lool voilà très bien voilà après voilà voilà. tay bilan bi wax ni xam nga bilan bu am solo la. Mm-hmm. mais teewul amna ño xamni ñom dañu japp ni adama mom daf ko hmm xam nga bilan bi nga wax nii bilan la boo xam ne képp ko déglu la xam ne bilan bi liggéeykat dëgg moo ko mën a def macha allah mhm. mais tey est-ce que est dafa problème ak ñenn jeunes ba tax na parfois bu ñu nee macha allah ñu ni noonu dafa war a dem ba am na sax ñu naan noonu dépassé na 40 ans mhm. dafa war a dem donc la mooy problème en fait non dire que xam nga sooy liggéey mhm. dina am ñu la bëgg dina encouragé. est ce que euh, non tu m'as posé. tu m'as posé une question mm-hmm. intéressante. Mm-hmm. Moi, dina la jox une réponse intéressante. aduna mm-hmm. euh, soy dox di dem. dina am dal lu la encore dans la mais li am solo. Moi qui am 40 ans qui amna 50 ans man suma amone amoon yenn âge yooyu du ma conseil de la jeunesse parce que conseil communal de la jeunesse âge bi ka war a 15 ans la ba 35 ans. ah 40 ans. non attends man it mo wax la man. Mm. man mm. jamono ji may wante yow dépassé les 35 ans sama mandat jeex na ku osé sa mandat jeex conseil yi nek ci Sénégal gi yëpp yow en tant que conseil de la jeunesse nga def communiquer ni bëgg naa ñu renouveler les conseils de la jeunesse pour suñu rakk yi ñëw ñu encadrer leen mais kooku xam nga ñi taxu ko jóg parce que ñun dañu am yeneen ambition dana am yenn gis-gis est-ce que bu dul dara conseil bi pour nous demee ñeneen ñëw ñu encadrer mais ñu ngi si yeneen parce que tamit dañu am yeneen yu ñuy xaar yi nga xam du la ko wax fii ah non mais est-ce que euh, non xam nga lu Aduna, xam nga aduna. Aduna, Aduna, Aduna, Aduna, patience ak imagination ak vision nga koy dox nga man sama point fort c'est lan mooy duma xool ñu sama xam uh-huh. donc yo ban ban conclusion nga tirer ci ni dem mais kooku sax xam ñu ngi lay félicité naan noonu toog Abdou Sidou am na. mais mais mais mais mais sant yàlla. mais ñi ñi taxaw ñi dafa war a dem donc loolu man dama jàpp ni est-ce que amul loo xam ni ay règlement de compte la yu am parce que ay jeunesse nga nga jiite du ñàkk tey am ñoo xam ni peut-être xëy na am na lu tax ñu taxawee taxawaay boobu noonu donc yow war nga sax benn jàngat boo xam ni moom ngay moom moom ngay teg. mais c'est la vie même Saint-Louis TV. Mm-hmm. am na ñuy wax Saint-Louis TV mi ngi ah. liggéey liggéey bu extraordinaire am na ñu ni Saint-Louis TV liggéeyu liggéey bu extraordinaire.

woo ma mere ma ni ma wutax ngay wax loolu mën na li tax ma koy wax sunu mandat dafa jeex sunu ay rakk fokk ñu ñëw ñu encadré leen ñu ñu nekkaat si leneen. mais est-ce que est-ce laal en fait ma dimbali la nga laal ko bokk. mais l'institut est-ce que du tax. politique est-ce que politique. bonne politique par exemple. tay xam nga tay bo bo bo boo nekkee président mouvement tay ni nga waxe ndax ci kanam. Mhm. donc amna amna ambition yo bëgg. loolu mhm. ñoo gum légui mhm. mais tay euh, ñi ngay jiite. mën amana mën ci yeneen parti. wala ñu bok ci yeneen mouvement. baña bok ak yow mais yow ce qui est important moy li ngay jiite parti taxul nga jiite ko dafa am tax nga jiite ko est-ce que tamit loolu indi problème bi wara tax parfois mo am ay confusion seen biir. Euh, Cheikh. tous les conseils communaux yu nekk ci Sénégal tous les conseils départementaux du Sénégal tous les conseils régionaux du Sénégal mais l'institution de la jeunesse c'est une institution apolitique mais ku y am casquette politique si le conseil est ma Il y beaucoup de partis. parti mais ñu y une organisation société civile Il y a, partis parti pouvoir nous sommes nga opposition bi. ci conseil de la jeunesse mais ken amul droit ñeu ci conseil communal de la jeunesse indi fa sa casquette politique. est-ce que c'est le indi problème yi tay non ma ngi ñeu mm-hmm. ken amul droit dem sa parti politique faire wax conseil communal de la jeunesse parce que dafa am règlement intérieur ak ay statut mm-hmm. ay textes yi nga xam dañ ko defar mu lu clair ku jël institution de la jeunesse qui est politique am dal yi ma la a man politique damay le conseil communal de la jeunesse sur suma casquette politique Si suis nekkee le conseil communal de la jeunesse damay suis sama casquette politique tegoon ne sol casquette conseil communal de la jeunesse qui ma c'est mon jeunesse ba pas ma wax la benn affaire tous les partis politiques ils ont des am doole si Sénégal membre d'office du conseil de la jeunesse ah, ah oui les taxi étudiants membres membre d'office c'est le conseil de la jeunesse non quand même dama si expérience je suis géré mais ñi sommes bokk ñëpp nekk si parti parti mais kenn kenn kenn aussi mais ah mais mais sama sama vice président. mais sama Harid la mais bon vice président sax nga premier vice président ou le deuxième vice président. non est-ce que premier vice président. non deuxième vice président. Ah. amoon na quelque coow. Ah. mais suma Harid la mais coow loolu du woon coow coow bu doon faire la.

amul lenn lo xamni ne ak politique bi bañ mu meuna am xiro ngaayoo bi. c'est très simple. Mhm. man li ma jiite. muy institution conseil communal de la jeunesse politique dugg si tey politique dugg si ëllëg parce que l'institution bu ñuy jiite c'est une institution apolitique mais ku nek am nga fo far mais so ñëwee ci conseil communal de la jeunesse dans sol sa casquette conseil communal de la jeunesse so guéné conseil communal de la jeunesse sur la neexee nga sol sa casquette organisation bi nga wante te yalo suturaal nañu bon nday ak bay bobu ñu bok ba ku nek bo ñewé sa casquette dang koy simmi teg ko fay yalla def nañu ba tay ji am nañu un bon bilan bu fi yamon sax nexna parce que jeunesse bi li ñuy xaar si ñun à 95% vingt quinze atteindre nañ jeunesse bi fier nañu si ñun. Faut mën ñu ma gis ñu ngi may encouragé ñu parce que conseil communal je suis un conseil communal bu ko gën a visibilité conseil communal je suis un conseil communal bu ay partenaire am ay confiance Le conseil communal bi, beaucoup na si conseil communal yi nga xam li mu def si activité ah. macha ba partenaires yi ñu ngi may woo ba démb rek am na benn partenaire bu ma woo mois d'août war am lu mu def ak ñun incha allah kooku sant yàlla non non no non non man du ma koo xam ni sama mandat day jeex nga toog si man dama am d'autres ambitions kon yéeg mën nañ jàpp ne bu bii jeexee rek jeex na non bu bii jeexee déggoo man xanaa yow yi si presse bi que que que que que fu mu nekk nii xam nga man su ma yéene su xalaat mhm. mooy mhm. sunu mandat jeex na nañ ko renouveler mais kenn mooy renouveler

bu la ko joxaatee da jël. non jamais au plus grand jamais. ah oui bi mooy sama dernier euh, sama dernier mandat parce que dama d'autres ambitions. pour ma ville pour ma ville ak sama réew. sa que Diaw ISM sa digganteeg Mansour Faye sa digganteeg muy toog ñaan ñi nee nañu ba léegi euh, Adama Adama fu mu nekk nii day jéem a fa la war a loxo. Tay <laughs> tey da nga dégg ci Diaw Diaw Diaw Diaw bu suba ñu dégg ci Mansour muy toog ñaan bu gannaaw suba ñu dégg ci Mansour Faye sa problème ak ñoñu wala soit dafa am lo xam yang koy liggé ci bi ku jaxase ñooñu seen bi wal non jamais Amadou Diaw bu ko dugal si politique. non mais mais mais mos na ànd non du du sama grand la. Mhm. j'assume sama xarit la. tay bama taxawlé taxawlee ba nu ba nu yàlla may ndam ci conseil communal de la jeunesse mhm. moom moo un Saint-Louisien bu taxaw invité ñu kërëm mhm. defal ñu une formation en leadership ben wéru koor jox ñu ndogu ci biir kërëm encouragé ñu encadré ñu. di ñuy jox ay xalat di ñuy jox ay conseils c'est un grand monsieur qui aime sa ville qui aime son pays ya ngi dégg ko xamni man sama wal bop damay jang ci mom ci lu bëri bëri sama xarit la sama oncle la sama grand la sama lepp sama digënté Mary Teuw Niane ngay wax Mary ñaan suma suma suma suma grand la suma xarit la mais moom en tant que président conseil communal de la jeunesse defoon na fi ay activités de jeunesse ñu parrainé ko ay néotaan il m'a invité déggoo ma wax la man jeunesse bi ñëpp laa fi nekkal non non non non non non déggoo ma wax la non attends xam nga soo non xam nga xam nga non non non xam nga jeunesse moom mi ngi fépp xam nga dag ma poser ay questions si Amadou Diaw mhm. si diggante ak euh, Mary Teuw Niane ak kan Mansour Faye voilà il faut lay expliquer Mary mhm. Teuw Niane bu ma invité si activité jeunesse am en tant que président conseil communal damay dem moom Si je woowaatoon ton téléphone ne ma amna une activité de jeunesse je mhm. la invité ma sol sama daal dem wuy relation yi ñaar du politique du politique ok c'est bon Mansour Fay, ngi ma sama relation ak moom mhm. Mansour fokk ñu que ne man ba ko xamee dafa depuis 2006 c'est le maire de la commune de Saint-Louis la commune de Saint-Louis c'est le premier partenaire du conseil communal de la jeunesse y a ay temps amoon nañu tuuti parce que loolu du ñàkk si ah, non non non du question sonal Mansour nit ku baax la mhm. parce que tax ma la nit ku baax lu question dama koy jeter fleur mhm. man yare yarewu nyuma ma may tagg ay nit mhm. est-ce qu'on comprend que mais c'est un grand monsieur ku parle, la ku qui la ku dal la ku la ku est-ce que comprendre nga Moi, c'est sama premier partenaire tey Mansour mi ngi doon def rencontre juste après les élections yi mais dañu dégg nañ téléphone mu invité ma si rencontre yooyu dem naa 10 dix rencontres il y naa si neuf Il mu dajale toute la jeunesse communale par quartier waxtaan ak ñoom diggante maire diggante pape diggante nijaay déglu ndaw dëkkam ku nekk joxe ko sa xalaat ba mu jeexee trois cent soixante 370 ndaw wute na leen permis conduite ba samedi le 18 y def remise ba de cette technique xam nga loolu ku am solo yow bu fekkee da nga conseil non xaaral non maa ngi ñëw bu vous bu que ni yow da nga président conseil communal de la jeunesse moom mu nekk maire dëkk bi muy def politique jeunesse lu baax si ndaw li dañ ko war encourager dañ ko war a féliciter sama relation mën naa du politique parce que ba ma ko day xam politique

bon euh, maire mère laïout, wala ma mère. l'essentiel ngi pour lui jëmale sama dëkk est-ce que je peux la une question. Ah. non je ne peux pas poser une question. Oui, mais je peux poser élection mairie c'est. élection mairie xamaguma déclaration ñu bëree ñu melni ñom ñom may taw ñaan doon extra donc mën nga lancer. mais attends attends attends dafa am gaay xamni buzz rek la ñuy wut quoi. ah kon gars buzz mais parce que gis nga na la xamal ben affaire <laughs> yow yow man sama deret bi deret politique mi ngi si parce que man suma mam euh. Abi Kane Diallo xam ngeen ko. Mhm. dégg ngeen turam. nekkoon na fi meeru Ndar. mo jur suma papa. Majmout job bi yoon PAI yi. mom mhm. sama mam Abi Kane Diallo. Mhm. yaayu Majmout Diop. yaay deg ak yaayu abikan jallo ño bokku nday ak bay ok yaa mm-hmm. man suma deret damay am lu may sentir. yaay deg l'essentiel li am solo. Mm-hmm. créer nañu mouvement dans Sa Kalam mm-hmm. yalla mi ngi sutural ñu ngi yaatal ñu ngi massifier wu ñu ngi liggey jeunesse bi ñu ngi ñew di adhérer ci mouvement bi mag ñi ñu ngi ñew di adhérer ci mouvement bi. femmes yi ngi ñëw di adhérer si mouvement yi parce que mag ñi dañuy faral di wax mbooloo boo gis xar rek nekk si wóorul mbooloo boo gis tamit mag rek nekk si wóorul mais ñëpp a ngi si am na ay intellectuel am na ay cadre am na ñi nga xam ni ay étudiants lañu am na ay élèves am na ay ménagères ah am na catégorie yëpp. am nañu cellule de communication ñu ñoo question boobu laale lay toll ñu ngi yaatal di liggéey.

mooy intérêt dëkk bi. Ah, boobu leer na. non leerul ba léegi. kon léegi da am koy àndal koy wala ngay demal sa bopp. déet xam nga man dafa am ñu topp sama ginnaaw. te ah. bëgguma nekk njiitu dictateur. bu jotee rek yéen ñëpp naa leen invité ngeen ñoo fekkee la déclaration. kon bi pare goo ñu ngi liggéey non pare nañu pare nañu l' essentiel ñu ngi liggéey nous touchons du bois. yàlla mi ngi sutura nit ñi ngi ñëw. est-ce que est la liggéey liggéey ak sa xalaat ngay wax. <laughs> sa xalaat dong nga te sa xalaat tamit dama la koy nangul. parce ba léegi boobu ba léegi gis nañu nangu woonu leeral ba xam na ngay na ngay na ngay na ngay na ngay déposé wala déposé mais xam nga nee naa su ma ko waxee fii war naa ñu nekk sama ginnaaw te ma suñu ko waxtaanee réunion. Ah, xam nga li am solo boo bëggee sa ay nit naw la xam nga tey maa jiite mouvement mais gënuma leen papa gënu ma leen yaay ëpp ma leen xam-xam. dama dañu ma gis nii rek ñu doy ma ñu jiital ma kon lépp lu may def dañ koy waxtaanee ak ñoom te lépp lu mënti am ak décision bu ñuy jël Dans woo journaliste yi nekk ndar gi ñu taxaw si digu ndar du ñu nëbbatu ñu xol lan moy intéressant saint ñu dem sa c'est ça. sa diggante ndaw ñi. diggante ndaw ñi relation confiance sante yalla xam nga man euh, mon ami mon frère Cheikh man li tax tay moy xuus ndaw yi naa leen ko may dama mas tëdd xaaju guddi. ma gént gént gu yéeme ma laajte benn kilifa diine ma ne ko dama doon nalaw gént lii rek ñu nodd ma ne ko loolu lal la mu ni ma de lenn de dinaa la ko wax xaw ma kañ la di nga mas jiite ay ndaw <laughs> affaire bu yéeme boobu ba ma ko dee wax boobu maa ngi am vingt ans vingt ans mu ma génneel sarax mais lenn la lay conseil bu yéene kenn lu bon yéeneen ñëpp jàmm yaa ngi dégg la nekk sa gannaaw bu ko xol xoolal la nekk sa kalam motax kuma ku lu bon baal naa ko wax wax ju ñaaw baal naa parce que dañ ma éduqué dañ ma dégg loolu tay loolu La commencé ak une association bu ñuy wax jeunesse jeunesse engagée responsable de saint association bobu tay ñoo ma mandaté ak ndaw ndari ba yalla def tay ma nekk président conseil communal de la jeunesse mhm. ba yàlla def tamit conseil communal boobu ñu am si lu bëri est-ce que comprendre fi may waxee moo tax tey sama relation ak ndaw yi lan moo tax confiance bi gën a am mooy dam leen wax dëgg dam leen wax li mën a nekk macha allah dam leen encadré dam leen wan yoon dam leen jox ay conseil tey ndaw yu nu wutal stage kenn xamul nu mu toll ndaw yu nu wan yoon ba am seen ay projet ba nu financé leen kenn xamu nu mu toll ndaw yu nu defaral projet kenn xamul nu mu toll ndaw yu nu jàng bëggoon jàng amuñu may ñu dugg leen si ay école de formation ñu jàng ba génn tey am seen liggéey kenn xamu nu mu toll si quatre ans mais alhamdulilah rabbil alamin xam ne mbir mi du sunu mbir yàlla moo si teg loxoom. ok donc donc donc nga boole si ndaw bokk ñu am permis. non incha allah l' moom samay waay ngeen euh, yéen moom yàlla boole nañu. man jaay bi may finale temps jeex na. ok benn question bu may bu may laaj moom laay tëjee muy SAP fédère euh, nga xam ni actualité la man jaay je pense mën nga ma may boobu noonu. waaw et cette vedette bi nga xam ni euh, euh, actualité la ñu waxtaane donc gis-gis. sama gis-gis lemp lenn la mooy bu ko gars yi politiqué <laughs> non attends loolu xam nga am na ñi ñi si wax ñoo xam ni mhm. ñu ngi koy politiqué pour seen intérêt personnel loolu baaxul sax si ñoom mhm. te ñooñ di wax gëm naa ni su suñu nekkoon maire du ñu xalaatee noonu xam nga bëgg nekk maire taxul lenn am rek nga fëpp fër rek wax kilifa du gaaw a wax si yenn yi da ngay ànd ak dal am tey observer wala yow boo bëggee dara nga créer sa benn comité ni lu mel si loolu. loolu yooyu di def def nañ une erreur kon ñooñu Saint-Louis mënul compter si pour ñu nekk meeru Ndar. dafa des lu bëri. loo gis dafa des. dafa. loo gis mu des non attends ñëw maa ngi ñëw si loolu laay ñëw. xam nga loo gis histoire dafa am solo si réew. une famille sax dafa am histoire. une famille dafay am histoire cest à que dafay dem du dem kooku maire dëkk bi am na ay conseil municipal moo war a ñu ubbi benn waxtaan suñu ubbee waxtaan ñu xool xalaat bi gën si dëkk bi ñu def ko parce que feder bi bii ñuy wax na fi jóge gis naa ay gars yu si def ay toj-toj di wax nañu def def nañu place feder bi place Sëñ tuuba mais Sëñ Touba mérité na ñu koy tuddee place feder bi ki nga xam ni yàlla ak yonent bi dong moo ko ñor place bi nga xam ni foofu nay festival de jazz nekkee place bi nga xam ni foofu la defee lu bëri fii si dugg ndar ay sabar ak ay musique mais ñooñ def nañu erreur ah sëñ Touba boo koy tuddee da koy tuddee fu sell dangay ngay tuddee fu baax est-ce que comprendre nga y un problème Faidherbe fekkewuñu ko mais dégg nañu am na lu bari lu mu fi def si dëkk bi dégg naa sax ñu ne am na lu bari lu mu yàq dégg naa sax ñu ne am na ñu bëri ñu mu rey man kenn gisaguma mu génne benn photo ni Federer moo rey sama maamaati maam bi léegi ça veut dire problème bi nga xam ne ñun doomu ndari mairie bi jiite ko conseil bokk si boroom xam-xam yi yi yëngu si wàllu histoire bokk si ñu xalaat xalaat bu rafet ba bu nu defee décision boobu ñëpp a siy kontaan ñëpp a ànd mais benn intérêt moo siy nekk mooy intérêt yi louis donc ñu amoon mbégte mbégte mbégte dalal loolu suñu plateau je pense waxtaan bi waxtaan bu neex la.

muy où communautaire yi di où importé yi di où urgence yi euh, comment il s'appelle encore nous euh, sommes ñi. ñi ñi ñi voilà dans le coma etc., etc. mi ngi commencé di population mm-hmm.

ay euh, ay comité de veille yu mairie de Saint-Louis mettre en place ba conseil de la jeunesse ñëpp a ngi ci biir euh, di wax ne noonu continuer stratégie de sensibilisation en commençant par les maisons connues. yi di wax tamit ASC parce que gëm naa ne newataan ren du am mais nañ def Covid newataan mais ASC nous nañu organiser Nous xool na ñuy comité de veille yi nekk sa quartier nous sensibiliser à ce sensibiliser askan suñ ko defee jàmm ni ñooy ba pare di wax tamit képp koo xam ne mën nga dimbale sa mbokk jullit si tabaski bii ñuy jublu mu nekk tabaski bu nar a metti parce que feebar bi depuis quatre mois mi ngi fi te am na ñi nga xam ni seen revenu demeetul noonu koo xam ni daal tane na mbokkam nga dimbale ko te yàlla rek tax nga def ko te yàlla tax parce que yu mel nii ku siy dimbale nit yàlla moo lay fay te ku ku defal yàlla yàlla dina la fay àdduna ak àllaaxira dee ni gërëm yéen waa Saint-Louis TV émission bi dafa gaaw jeex lool.

merci donc di amal mbégte loolu di kontaan trop ci teewaay bi di remercier ñi nga xam ñoo nekkoon ci ginnaaw ku si mel euh, Mandiaye Seck ñoo ngi koy remercier bu baax a baax Mandiaye Mandiaye Fall <laughs> ah di di remercier Xëch Pro di ko jaale di ko jaale moom bu baax a baax waajuram bu góor mat wàññeeku donc équipe Sen TV yëpp ñoo ngi ñoo ngi lay jaale te di ànd ak yow ci naqar bi. macha allah suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu xarit la suñu lépp la. di char aussi tamit euh, la grand le directeur <laughs> novice moom sa xarit la. Ah waaw waay Ousseynou waaw dëgg yàlla. Mhm. il est excellent moo yoroon direct bi direct. macha allah macha allah macha allah di char aussi tamit euh, El Hadj. El Hadj borom wasa xatuma Ndiaye <laughs> bu ko defee ñoo ngi amoon mbégte bu baax a baax di dégg di gërëm dégâts yu bu baax a baax moom tamit euh, moo nu jox disposition bi fii si accord waa Dadaa bi. ñoo ngi koy baax a baax di gërëm ñi doon seetaan ñëpp di tamit euh, képp koo xam ne rek yaa ngi toogoon sa kër wala nga nekk ak foo mënti nekk rek di seetaan émission bi ñu ngi leen di bëgg baax a baax di leen jox dig ak daje ci yeneen numéro incha jaa ngeen jëfati